Toujours dans votre acte du jour de ce 18 octobre 2024 ginnaw Bougane Gueye Dany kii di euh, Samba Thiam moom it daal dina koy tontu neena jamono ji nga xamanteni Bakel Matam ñi ngi patauger jëmele ko ci biir ndox bi mom mi di leaderu Pastef Pastef mi ngi dal ben vaste campagne jëmele ko dal ci li nga xamanteni moy levée de fonds pour li nga xamanteni dal moy partem jëmale ko dal ci frolé lepp lo xamanteni moy sujet bo xamanteni dal, dañ ko wara a lâché jëmale ko dal ci ndox bi ki ko xamle di Samba Thiam mom mi di leaderu parti ndax vraiment xamna lan moy sensu priorité ginnaw nak bi nga xamanteni lepp luy joute électoral dafa mel ni ñom ñoko ëppal importance daal di am majorité fofu ci assemblée nationale ginnaw lepp lo xamanteni dal daal bëgg na dérouler ci programme pour def lepp lo xamanteni dal dañ danañ ko voter jaar la ko daal ci li nga xamanteni dal mëna mën na réitérer lii di vieille méthode yi nga xamanteni moy ay cotisation pour financer ay campagne électorale mom mii di leaderu parti passef supporté won woon li nga xamanteni dal moy mooy livre am ko dal ci ay yére yi nga xamanteni daf ko solo en tant que président parti passef lepp lo xamanteni dal daal lancé na ko ko ci appel ak patriotes yi du dara lu ben levée de fonds bo xamanteni pour financer li di campagne électorale la jëmele ko dal ci élection législative yi nga xamanteni mom lañu jëm le 17 novembre jamono ji nga xamanteni Matam Bakel ñom ñëpp ñi ngi jàkkaarloog ay difficultés jëmele ko dal ci énorme cause yo xamanteni li di ndox bi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 ñu yëkkati mille francs ci li ñuy liggéey waaxu ba Dakar Arena bi nga xam Macky Sall moo ko tabax te baaxul woon léegi baax na pour ñu cotiser ko pour seen élection législative Ousmane Sonko barki dem moo njaay yow yaa fi taxaw ne amul benn pouvoir bu sérieux boo xam ne ñëw na si nguur bëgg liggéey te naan bu ma amul majorité du ma liggéey yow yaa taxawoon fii di ko wax loolu su ñuy wax sa wax la bi ci dess xamone nañ sa wër lo gi yëpp sa conférence de presse yi yi dem commencé wat wër plateau yëpp li ngeen méthode bi ngeen utiliser won né Macky Sall dafay bëgg a daganal goor jigen and ko ak sam jikko yi mom ngeen même méthode bi ngeen bëggon ñëw bi isaat naxaat sénégalais yi tégaat leen ci programme ñu falu ñu falaat leen ngeen am majorité assemblée nak bu boba ñun xana dañuy dé ben yoon Yen Macky Sall lim fi bàyyi woon asub néew mais Macky Sall wax na ko mais da ngeen di fen te loolu ñun xam nañ ne da ngeen fen Macky Sall mënu leen fee bàyyi réew moo xam yow suwaay ñun ay affaire courant waxatuñ ko won léegi chaque jour day coupé yéen a ngi entraîné gars yi pour après commencé coupure bi gën a yokk yamoo ci seen toroxal sénégalais ci wàññi pouvoir d'achat bi sénégalais yi bëgg courant bi da ngeen multiplier ndox bi ngeen taxaw assumer publiquement da ngeen koy ba pare bëgg gëmloo te loolu yëpp avant ngeen koo def da ngeen bëgg gëmloo sénégalais que dañoo sàcc xaalis bi nangam sàngam fii xaalis amatu fi waa dama lay laaj Ousmane Sonko bi ngeen ñëwee ba tey li ngeen nekk di dépensé train de vie bi ngeen yor lan moo ci changé ak li ngeen doon dénoncé dàmbooj sax laa la wax nii day ay lu mat dix oto da koy topp dàmbooj ngeen wëlbatiku fond fond comme yi ngeen doon wax caisse noire yi ngeen doon wax. yéen nan ngeen mën a yoree ay caisse noir ah ay milliards nekk ci ngeen ne da ngeen soxla xaalis pour dëkk bi te caisse noire yooyu mënoo leen ko jël def euh, utiliser ko tey sa ministre de l'éducation lu mu def donte ne man kaasal ma booy de booy ñoo doon taal taawun bi ñoo doon taal taawun bi di golo gololu baax na ci ñoom ngeen ne mënoo leen fay booy di wàññi booy seen seen seen lii. sen sen sen sen rémunération yi sen bourse yi te yeen ben avantage yeen ñi nga xam yeen ëpp doole yeen ëpp li ngeen gagné amul lenn ben avantage bu ngeen wañil sen bop bi ci dess scandalu 8 milliards ñu ngi koy wax bop ba ñame ñeme nanguwoo leen ci wax ndax lu neex ngeen def bizarrement ngeen ne da ngeen Tamba 7 milliards <laughs> non soit mën nañoo ñàkk nag mais suñu bopp yi day xalaat huit milliards bu léer bu réer même pas deux semaines ñu koy wax cooli wàccegul ngeen ne sept milliards ngeen yóbbu Tamba ndax ndox mi fa ndox mi fa ndox mi barage bi ci yéen barrage bi yéen leer na yéen barage bi situation barage boobu yéen barrage bi yéen ko dindi yéen yéen a dindi barage bi pour am prétexte yóbbu fa xaalis campagne yi ñun dofuñu ay njàccaar nañ bizarrement nag biir Tamba nga xam ne foofu musoo leen ko gañe électorat bi ne foofu moo leen jaaxal ngeen da ngeen fay yóbbu sept milliards te bërki Demba Ndiaye Touba gii cap de économique du Sénégal nekk ci ay jafe-jafe ci ndox cinquante million ngeen fa yóbbu Barthélemy Diaz maire de Dakar li mu fa def sax defoo leen ko fa. yéen waa Touba yéen ñi ko doon défendre yéen ñi gëm Serigne Touba mais exemple la ngi nii sept milliards ci barrage bu rëcc am famille yu mu yàqal nga ne da fay yóbbu sept milliards Touba gi bërki démb ñu nekk ci ay jafe-jafe yu dul jeex yóbbu leen fa lu dul cinquante millions ñun maanaam. amul maanaam respecté wu leen nit ñi Ousmane Sonko buy wax day mel ni mais nag moo yey quoi chaque jour moo xoo parce que ku taxaw wax ne Sweet Beauté dama fa doon faju ji xeex loolu ba dee kooku mën na gëm lu ne. fu mu doon jaar rek lay lay jaar waxul lu bees li mu bëgg mooy ñoom xaalisu campagne téye nañ ko ba pare ronke nañ ko ci sénégalais ba ba pare. mais maanaam nuñ ko setalee nuñ fexee ba dugal ko ci circuit bi ñu xam ne du xaalisu état loolu la bëgg a def mu naan yow fii dëkk bi gars yi dañoo yor lu ñu lekk bay joxe 1000 francs waxuma mu naan am naa ay ñu gën a kawe ay cinquante mille ay cent mille nangam sangam tappale kese ci tappale kese la nekk pour lan am majorité assemblée nationale doog a doxal li ñu bëgg a doxal ci réew mi te lu leen neex bu boobaa la ñuy def du ngeen ci mën cent francs Ousmane Sonko nag maanaam fii moom bu nit ñi yeewul si yow dootuñu mës a yeewu sept milliards huit milliards bërki démb ñoo ngi koy wax te kooku booy boobu doful booy boobu fan lay jëlee huit milliards se huit milliards senegale yëpp di wax booy bi ne patt pataaral waxul am ñu koy jéem a défendre boo xam nañ fi xaalis bi dugg xaalis boobu xam nañ fi mu dugg bu baax sept milliards yi ngeen war a yóbbu fe set milliards yi ngeen bëgg a yóbbu Tamba fee 7 milliards yoy fa la jóge té ngeen gëm lo nit ñi ni yow bo mënee ngeew nga fal barki demb 47 chargeurs de mission ñuy fayé ko ay 600000 francs nga né mëno fay boy université nga né da ngay da ngay wañi sen salaire ba pare jël enveloppe 7 milliards diko yobbu félé Touba nekkoon fi gëna a di ak capital économique ñu tok ay wër mënu ñoo liggéey ndax ndox màggal gi lépp jaar fi nga yóbbu fa cinquante million mooy faale woo leen sëriñ Touba li ngeen wax ay duul la gëmoo leen ci dara mais nag ñun li ñu mën mooy alerte rek léegi nag ak lii yëpp mu nekkee état bu nekk en ruine FMI génnewaat na rapport génnewaat na étude bi mu def te dëggal na li Macky Sall waxoon te ñun dofuñu maanaam ñun soxlawul ñuy jàngi jàng bu sori maanaam fii ku fi nekk xam nga ne yaa six mois ni nga doon dundee ak léegi dafa changé ñun mënoon nañ comprendre ñun ñu sax train de vie train de vie état bi wàññeeku na avantage yi ngeen amoon amato amatoo leen ko mais yéen yéen a ngi nekk seen confort ah hein? koo ci gis mi ngeeg ay mi ngeeg cortège am di voyager gauche di voyager droite di jël seeni nit chaque jour communi conseil conseil euh, ministériel ngeen def nomination yu dul jeex hein? au même moment yeneen sénégalais yi moom li ñu amoon asum néew ay wàññi salaire ay wàññi ay avantages soxor yéen du ngeen yow maanaam yow non vrai doome xaraam nga yow Ousmane Sonko yow maanaam boo doome xaraame woon sax ba ñëw ci ba ñëw ba ñëw ci au pouvoir nga mën a yërëm sénégalais yi quoi yow fi gars yi jaar ak yow donte ñun mosuñu laa gëm te duñ la gëm ba mukk ndax duurkat nga kon ñoo ko ci papa lance lancé appel jëmale ko ci campagne bi nga dara majorité à l'Assemblée nationale Les plus Sénégalais du di yoonam ci daal appel de fonds pour financer les campagnes campagne électorale am loolu solo j'ai ko daal ci Sénégalais yi alors ji nga ñi ngi boire plus le noir la nouvelle trouvaille yi nga mon mi parti porté début live lepp loo xamante ni daal jëm na ci sensibiliser situation sinistré yi ak montée d'eau bi nga xamante ni moo am foofu ca Bakel Matam empêché wul benn yoon kii di leaderu parti Pastef daal di sukkandiku ci lancer campagne lii nga xamante ni mooy levée de fonds pour daal di financer lii di campagne électorale am ginnaaw bi nga xamante ni lépp loo xamante ni lii di pouvoir exécutif bi grâce ak lépp loo xamante ni mooy bataille ardu jaarle ko ci lépp loo xamante ni bëgg nañ ko def jëmale ko ci pouvoir législatif bi afin que ñu mën a am lépp loo xamante ni mën nañ ko liggéey pour xamloo ni que daal que kii di leaderu parti Pastef lépp lu mu mën a poursuivre maanaam mooy li gën ñu continuer li nga xamante dal daal mooy mission bi nga xamanteni ni tey dafa war a servir jëmale ko dal ci lépp loo xamante ni mooy am benn majorité assemblée nationale ginnaaw bi nga xamante ni amul dara lu ko mën a permettre mu am li nga xamante ni mooy latitude dal di poursuivre lépp loo xamante ni ministre wala président de la république jëmale ko dal ci ñi nga xamante ni daal mooy haute cour de justice dal di justifier lii di campagne am jëmale ko dal ci levée de fonds bi nga xamante ni moom daf ko indiqué ginnaaw bi nga xamante ni dafa egsi au pouvoir buñ ko cotilisé moo tax tey mu sukkandiku ci ay campagne yoo xamante ni dafa foog ni mën na changer lépp loo xamante ni ay méthode la jëmale ko dal ci lépp loo xamante ni war nañ ko arrêté mu doon loo xamante ni tey mën nañ ci sukkandiku que état bi amul dara loo xamante ni suñ ci sukkandikoo gis nañ ko jëmale ko daal ci ay promesses yu mu diggoon Sénégalais yi te defu ci dara lekkaatiwaat lépp loo xamante ni dina ko organiser mooy giga meeting boo xamante ni fii ci Dakar Arena la muy samedi 19 jëmale ko daal ci benn majorité bu confortable pour que lii di partem am lépp loo xamante ni daal ñu réfléchir lañu de manière boo xamante ni mën nañu battre campagne ba noppi daal di lever ay fonds sukkandiku ci li nga xamante ni daal mooy ay carton jëmale ko daal ci ay premium ak li nga xamante ni daal mën nañ ko tuddee ordinaire ay DG DG ay ministre

jaay dolé imposer les lignes nga xamante moy dictature rampante qu'un dootul wax xalaatam ku fi wax délit mu tëjee la délit d'opinion en tout cas li la Samba Thiam daal di xamle jëmale ko dal ci li nga xamante moy mooy sorti leaderu parti Pastef ginnaw bu mu casquette li di premier ministre guat li ci langue politique bi